yombal pombiteer yombal diwliñ yombal it xar ak yére yu xale yi sol bi jaay na bi Moustapha ci noonu nag du fàtte seen mbokk yi nga xam ne daaw ñu ngi woon def tabaski ak seeni bokk te yàlla def ren ñii jiitu ci bàmmeel ñi nekk ci kaso yi ñi te nekk seen lali hôpital te nëgë ni daaw ñu ngi fi woon àndatu ko ñun mu neexoon lool ren nag suñu borom du seenug yaafuus du seenug uh, dara yàlla rek mooy xool kenn ku ci nekk rek la moo la mu xiir ci yow mu teg ko sa kaw ñi mu yobul leen barzak ñi mu yobul leen ci kassay ñi mu teural leen ci lal waaye yalla mom nga xam mo mo moo jam jaam di xol lu ko neex mu tek ko ñu ngi koy ñaan nat bobu yalla nako tegg bam set wicc te bu mu leen ko teggee yalla bu leen ko tegaat euh, ñi nga xam jitu nañu suñu borom moy fal suuf seen kaw ba euh, fañu jëm gën leen fini juggé waye tam duñu fatte ñi nga xamante dañuy safo dañu bëggee dañu sétane dañuy top diñu suivre té seen expérience ëpp suñu expérience seen fasaha gëna a leer suñu bas seenu mbaax gën gëna gën a suñu bax waaye nak ñun nu ngi dogal tok xamni auto bo gis nak ben safoore dawal ñu jiital ñu nu sekk ndaanaan Alaaji Moustapha Ndiaye doy ngeen ñu doxal leen kon ñu ngi leen nuyu baaxa baax di nuyu tamit borom kër gi Pape Doumbia di nuyu l'ensemble personnel ci kër gi yépp ak nit ñu baax ci réew mi di wax nak bak baangi non émission bu mag bi nga xam dañ leen ko baaxantal dimanche bu jot ci waxtu wi mi émission aada ak cosaan ñu fas yéene waxtaan ak yéen lépp loo jëm ci aada aaday réew mi ak cosaan réew muy làmb ñu duppee ko galgal tey nag ñu am mbégte gu rëy dalal fi suñu mag xam naa ni kii ñu fi dalal bu ko doyen Ngoury gisee xolam dina sedd bu ko Déthié Boll gisee xolam dina sedd sama grand bu tëgg ci taaxi kaw bu gisee kii ñu dalal xolam dina sedd Abdou Khader bu gisee kii suñu xol dina sedd waaye sen papa sen Mak, sen grand frère mu alaaji mbay pam bay ci ngeewal ga perso sa jom ñom ak l'ensemble personnel bi nga xamne ñu ngi fi ci ties nek ay chef major ba suñu papa ji nga xamne dut pen ma nga ci Côte d'Ivoire tay bu sétane ki tok ci plateau bi dina xamne ku jur dom déew way ku am ndono tamit fu ragalo fenn fo jëm muy suñu mag de suñu xarit Serigne Diagne yaakar nan tay ngeewal gep nak wanat na wanat la ni du keur yep la meuna dugg and fa suñu micro waaye dinañ cof ci yéen à chaque fois teg lañ ci plateau ba ngeen xam sunu xol du ju mukk ci yéen ndax nu nu mel yéen la lu muy loolu rek dañuy bàyyi Alaaji Moustapha Ndiaye tey mu nuyoog yéen di leen wax ne Serigne Diagne moom itamit mooy chef tambour major Modou Anta Gueye le tigre de Thiès ñu war a waxtaanam ci làmb ci bàkk ci tuus ci galañ ci préparation ci xarfa xuufa ndax géwal la cee bokk Alaaji Moustapha Ndiaye vous avez la parole jërëjëf euh, Seck Ndaanaan euh, xanaa di la fay nuyoo rek di am contentement bu baax a baax a baax ci dellusiwaat gi nga xam dellusi nañ ko ci kër gi di doore suñu nuyoo rek ci borom kër gi muy Pape Doumbia di ko nuyu bu baax di nuyu personnel bi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk yëpp di jaajëfal gars yi womat liggéey bi ba mu yegg si fi nga xam ne fi la yegg si di nuyu euh, Sénégal gi yëpp. di nuyu àddina mais di nuyu ñi nga xamante ni ñoo ñu safoo comme ni nga koy waxee. di axlu làmb ak axlu goo mën a bokk rek. te ñi safoo ñu doon sa soppe suñu soppee nga ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. di. profité rek ci sof suma ay wax ci say wax. muy nuyu ki nga xam ne moom mooy Serigne Diagne nekk grand boo xamante ni vraiment icône la modèle la. dëgg la ci wàllu li nga xamante ni moom lay def. Mhm. ñu am ci euh, gis-gis bu yaatu ci moom ndax yàgg ko topp. Mhm. yàgg ko seetaan. yàgg koo gis muy bàkk mhm. mais ci comportement am yiwam mhm. fidélité am mhm. car macha allah dafay neex ñu jàkkaarloo ak moom koy nuyu bu baax a baax xam nga fii ku yàq aar ak ku baadola wala ku tilim duñ la fi teg de déedéet waaw di la wane parce que waxuma la sax yàq gi nga yàq suñ télé waaye yàq gi ñu yàqaale nit ñi mm. bëgg a baax moo tax fii jàppandi képp kuñ fi teg rek nga toog rek mm. Thiès ñoo ñooy nungu buñ gisee image Thiès ci boppam ñoo naan war na non war na war na xar la ñu woon leen leen invité Serigne Ndiagne ñu bàyyi la nga asalaamaaleykum Thiès kaay asalaamaaleykum àdduna asalaamaaleykum sama mbokki géwël mhm. asalaamaaleykum borom kër gi maa ngi nuyu àdduna bépp ndax télé bi soo mënoon Thiès rek dama naan àdduna bépp maa ngi leen nuyu mhm. ndax fu waaye di nekk rek yaa ngi koy seetaan dëgg leen gërëm ci invitation bi ngeen ma defal nii mhm. mu doon lu rëy ci man mu doon loo xam ni tamit maa ngi koy boole sama mbokki géwël yépp ñëwaale leen. di sama xol di sedd lool ci ni ngeen ma defal nii samay rakk. yéen seen loxo set tamit. Ah, ngeen mën a bokk ak mag ñi. Mm-hmm. kon maa ngi leen di sant. Mm-hmm. à part ça maa ngi euh, sant samay waajur bu baax a baax a baax. Mm-hmm. di sant sama baay Tafa Diagne mi nga xam ne moo tax ma doon li ma doon. waaw maa ngi koy gërëm di ko sant. sant sama yaay Binta Niang ah macha allah kontaan naa daal tey moom daal sama xol sedd na quoi. ñëw fekk leen kenn toog nii macha allah. di gërëm tamit borom kër gi. Dumbuya sa xarit la waaw ku baax. waaw bu baax waaw mi ngi nuyu xaritam. waaw de mi ngi nuyu xaritam. waaw ku neex ah, fekk xam nga du la dog de. <laughs> mais dañoo jëm ci élection <laughs> locale. Mm-hmm. Pape Dumbuya samp na dem. Mm-hmm. fu ko Serigne Diagne fekk. foore tamaam dar ko ba ngoon jot te du mus koo sëkkatal ba ci otam ne ko gannaaw damay ñibbi man mii maay dem ba ci oto dumbiyaa ne ko dumbiyaa ma naan ko Serigne Diagne Guewel mu yëkkati xaas bari jox wallaahi kon tey boo ñëwee këram gi dama lay bàyyi loolu loolu mm-hmm. dama ci dolli mm-hmm. ndax yow it yàqoo ci dara mm-hmm. ndax fu ma bàkke bay sama yaram tàng sax nga xam sama yaram tàng na nga ma ma taxaw bàyyi la nga yeggale kon ku neex a fekk nga ku neex yow it siisoo ci bi mu yaa. déedéet macha allah. <laughs> kon yàlla na yàlla jàppale. dëgg la yàlla may ñuy eggale. waaw waaw ci kàttan yàlla sunu borom. waaye dañuy wax waaye kenn du moom de. Mm. sant <laughs> loolu benn am feex mu ñëw. waaw waaw am na lu may kii tuuti nag. kilim bi la laal. booy de keroog doon doon wax waaye. waaw dan fay dellusiwul. kenn du hélas de. kilim baa ngi seddu guy. maa ngi dégg booy naan gisuñu kilim. Ah. Ah. waaye sànq am na benn affaire bi daw fii. ah xaw ah. mal waaye daal. tontul ñu. yow moom mi gis nga kilim. <laughs> peex maa ngi ñëw. Alla <laughs> Sarr amul lu mu waxati Sénégal <laughs> waaye Magam ja Mor Dior. lay fanaanoo tey. bu ma gis fan yii xam a oto na lu turu bees de. naan la. ana njongoloor man na xaw ma luy njongoloor. <laughs> nañu ko na fi wax ñu ko. <laughs> saa yi ma gisee ni ma waa El Hadj ana <laughs> ma man ma lay wax njongoloor. njongoloor. Mor ma boo gisee ma leen di màggu ñoom mag ñi dama leen di màggu. Eh. ku ma ci jaay affaire rek ma daw pëti xolu indi benn xa gannaaw taf ko sama wet gis ki ñu indi tey. Serigne Diagne Serigne Diagne. nga xam bu bu nu bu nu no noggatu rek. ñu daw tafu ci sëriñ. ak ñu door waxtaan bi. ak li nga xamante si nii mooy mooy mooy làmb. alaaj Moustapha gis nga tey Serigne Diagne fi mu génn nga li solo laa bëgg njëkk cee wax mbaxana mii nim mu ko solee xam nga tey boo nee jàkk Serigne Diagne sa xel dem ci géwali démb ya nga xam ñoo daan dar ya moo tax wax comportement ci géwal dafa am solo ndax yow rek sa affiche rek sa affiche sa table de bord rek ça parle quelque chose tey nii ma toogee xoolal si ma fël tey njaxas jël koppati mën naa koo solo correctement mais dama koo tuur genn wet Serigne Diagne ñëw war koo sol ba mu muuru jëm xoolal mu dongal ko ba fa karaw ko saxe defal la cub cub mu jëm jéggi naaw def seenu xaalis li mooy ndéeg rajo mm-hmm. ñu toogal gannaaw mooy tëggal moo doon tëggee dama lay bàyyi rek nga seq mu waxtaan tuuti ma soog a borom. Mm-hmm. jërëjëf Seck euh, dinaa sawar lool ci ñuy waxtaan ak euh, Serigne Diagne. Mm-hmm. mais balaa muy ñëw ci moom tuuti rek. Mm-hmm. danga am ñoo loo loo brosser ci sa nuyoo. muy ñi nga xam ne nekkoon nañoo ñoom daaw. ren yàlla dogal nekkuñu fi. dëgg la ñu ciy profité rek ci suñu kàddu ñun ñëpp di jàll Youssou Diame. Youssou Diame. Mm, bu bu bu. Papa Landing Njàmbe maa ngi nga xam ni ci suñu biir la bokkoon mm-hmm. doon taxaw xale yi ci làmb mm-hmm. wala aska askanu làmb Cees mm-hmm. yëpp yëpp àndandoo na nekk ci tiis ndax jàmbaaram ci làmb mais yaram ngoram tegginam heure boo gisee yuusu rek bu la xoolee sëgg na te lu mu la wax njariñ la nekk na fi bàyyi ko na fii ajjuma waaw bi ñu jullee tisbaar bi ba pare dañ ko rob la denc fii ci sëgi ma dooki mhm. yàlla na suufu ma dooki oyof lool ci kawam ci barke alxuraan vraiment ñu ngi koy jaalaat axlu làmb gépp di ko jaal waa waa écrit per landing waaw ñoom ñoo ñàkk waaw xale ya ñoom métro mhm. ñoom Kalidou mhm. rakk ja fils landing ak xale yi nga xam ne ñoo ñëw foofu yëpp. métro métro di nit ku baax moom itam. Mm-hmm. nga xam ne foire RIIT bi moo ñu daral mm-hmm. boole ñoo ko waa RIIT regroupement des éleveurs intensifs ñu liggéey ak ñoom douze jours. Mm-hmm. moom it ñu ngi koy jaale euh, magam. di ko jaale waa ahlu làmb yëpp. di wax ni Youssou Diame mi fi jóge fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu bàyyi. amiin bàyyiwu fi gàcce nag. naqar rek la fi bàyyi. te soo mu woyul moo tuuru. Mhm. xajoon na fi waaye suñu borom moom moom ay ay ay dogalam. xool nu ko neexee. waaye fa mu jëm yàlla na fa doon tabaski boo xamante si nii da koy gënal tabaski bu musa tabaskee fii ci àdduna. boobu gënal ko ko. ñàkk nañ ñëpp ñun waa ahlu làmb am na caractère rek de la part de El mu Moustapha Ndiaye ak sekk naa ci antenne prestige. Mhm. ñu ngi yóbbaale tous les télévisions ak rajo yi nekk Thiès. di leen jaarale suñu naawloo bu El jërëjëf ayca mu ngoog ci loolu rek ci la ñuy tàbbee ci waxtaan wi euh, jë ñëw jukki rek. jëm ci sëriñ. Mm-hmm. sëriñ mu mel ni euh, kàddu gi ñuy njëkk yëkkati rek. Mm-hmm. ci wàlli waxtaan ci wàlli làmb. Mm-hmm. làmb nag buñ ciy waxtaan waxtaan ak un euh, grand tambour dañuy waxtaane dëgg-dëgg. nag li nga xamante ni moom mooy aaday. ci tëgg. ba pare fii ñu toll actuellement. mu pëccëxoo. kenn ku ci nek wàll si ci ñu wara jéwaat xalé yi delloo ci wat galañ yi wax leen lan moy ndariñu teug surtout tous mhm. tuusal mbër fofu la bëgg ñu jëk ci déma rek comme ya tousal na titre de Thiès ñu dellu ci wat ci tous mhm. ak ban galañ mo wara teug tous tuus mhm. bi teug tous ban géwal la ban comportement la wara am li ñu ci gis lepp bokku ci ñu détaillé ko loolu la bëgg ñu ñu ñu ñu soobu ci waxtaan wo waaw alaaj Moustapha taxaw anu na wax ci kaw ñepp euh, njariñ njariñ sénégal bu am njariñ mhm. masha Allah bala may tontu ci lool tamit mhm. comme ki ngeen ñaanal ni mu yuusu ñen mhm. ko ñaanal tamit yalla xara ko aljana amin suma joge fofu en ma ngi nuy sama rak muy modu anta di dama koy faral di wax ni wala mu ma wax sax yow do sama geewal sama mag kon koku it ma ngi koy a ma ngi koy nuy bu baaxa baax diko jox waccu wayam ak rakam lay ak bépp mbeur bi tak ngem bir ties deug di kontaan ñom ñoom ndax euh, macha allah dañu ànd neex na ma lool. mbeur ties jamono ñu toll ni ñu ànd neex na ma lool way fo bañ fa ñew dag ma laacc ci tous tousal mbeur mbeur nak bokoy tousal da ngay xam ki ngay andal moy kan. mbeur amna na mbërantu mhm. am na. waaye géwal ki may man ay sama rak ma yéene limakoy defal ba tax na man sumay tousal modou Moodu Anta duma ko xaar ci len na modou mbeur la te ndënd mi ngay tuusale mbeur sax waroo ko yobbu programme waroo ko yobbu programme dedet ah man sam ban bok graw lay wax parce que modou bima day ba xamni ki champion la dafa bëgg li dama ko laaj jël xaliss dem Dakar yatal ko fa joor mu mag muy am lamb bin décoré ko bin ci Tigre apa mbeur mi bu modou beure ba pare joor mi faddi ko fat nga ko fat naa ko bu génnatee lamb la su génnatee lamb la muy li njëkk ci li li war ah li géwal ñëkk a def ci bay jël ak ciol mi nga xam mom ngay bakkel sa sa sa mbeur sabar gu ne nga yóbbu ko fa simbu gaynde gu yóbbu fa làmb nga ko waaw parce que dañ commencé sama papa monument seen waxal bu baax li ngay wax am na. sama papa monument làmb mi ngay tëgg tuuti la mbër ngay mm-hmm. waroo ko yóbbu programme mbër dafa war a am jool mi nga xam ne moom nga koy tuusale mm-hmm. kooku moom rek moom nga ciy tëkkal mm-hmm. jool mi léeg-léeg booy dikki ni ma sëriñ jool mi na fa neex man leen ki demul de waaw daa am ko ko moom lamb ba lamb lay génn première moy li ma lay jëkk wax ci géwal numu fonké mbeureum deug la ci première question bi waaw léegi waaw waaw dama waaw beneen bi ci des nag mm-hmm, mooy mm-hmm. sa digënté ak sa mbeur mm-hmm. li ngeen di dund lool secret la wara doon deug la loolu mo mo te génn ci mbedd bi war dem fenn secret la wara doon secret digënté géwal bi teug ak mbeur mi ni teug waaw na parce que waaw léeg-léeg ngeen di joxante ay kàddu yoo xam ne nii wala nga am ay affaire yoo xam ne ni dan la koy wax mhm. ndax bu géwal bi warut a toog moom it di xaar mbër mi waaw waaw na parce que mbër mi bu nee ko làmb rek moom mu ngi ci làmb yow it fi mu bu nee la sa mbër am na combat tamit yow yaa ngi ci làmb mhm. mbër mi day bëre da ngay bëre mhm. waaw ndax ndax ndax tambour major yi tamit ni mbër mi deme ci sëriñ bi wuti gàllaaj ngir daan ndax yaakaar naa ndamu mbër mi tamit ndamal tambour major bi ci la bokk ndax yeen di ngeen dem yenn saa ci serigne ngir wajjal seen mbër bu baax bu baax ndax saka ni geew mbeur mi joge dem ci serigne geel bi non la wara joge dem ci serigne ndax parce que mbeur mi bëreeg yow waaw géwalam hmm. am na lu muy ak yow ndax hmm. euh, nga bal ma ci ben ki ben mbeur bu modou do xam ma tudd waaw bu mu don beurel hmm. Dakar biñ ñëwé tek suñuy sabar gëwalam ñëw nañ fekk fiñ tok diñu sanni ay. ay bagage ay bagage <laughs> ma la ko wax mais fatananku, yi bëgg a ma leen bu kenn jóg. waaw fii yëpp nañ ko. ci lamb la bok ci lamb la bok mm. waaw. comme fat comme lan. bara suñu bop am wol nañ suñu bop do ñu balé bi ni dem. Ah, am ngeen lu ngeen yóbbaale. waaw lo xamni bu ñu leen sanné dara yi. ngeen ko mm, waaw ko. gisé digënté bop suñu borom billahi wallahi fiñ tok waaj bi mu sonnee gàllaaj ji ba pare rek. Mm-hmm. da koo def ba dem rek yàlla suñu borom daal di taw. daal taw. man leen booy toog leen mbir mi moom jeex ma. dafa buñ fa jógee ndam lan am. Mm-hmm. dèjà am na yoo xam sax mbër mi du ko yëg. waaw tuuti yaa ko jëlee sa responsabilité bopp. Mm-hmm. xam ni boo fi jigéen mbooloo ngay jël yóbbu leen. wér lu mat quinze personnes. ñëpp sa ginnaaw la ñuy topp. war leen a jëlee Thiès leen a yóbbu Dakar. kon booy dem war nga ngaa mën yàlla nag moo mën a aar. mooy lépp. waaw saa ñuy demit dañuy taalal suñu loxo dégg ko suñuy loxo. Hmm. kon moom maanaam li ma la mën a wax daal mooy. Eh. géewal it day. seku day day waaj waaw day waaj kon ci gàttal bala ñuy dem ci tuus mm-hmm. euh, galañ baag yooyu. waaw mooy mbër euh, géewal bi tuusal mbër du mbër moom du ku ko neex rek jël mu tëggal ko ndax man jaay mën na caa am leneen ak leneen mën na caa ne. kon comme maanaam mbër. Mm-hmm. du ku ko ku ko neex du géewal bu rek ni ko kaay tëggal ma non. parce que Modou moom moom rek laa gis ci koo xam ne ba mu jugee ci làmb mm-hmm. dañ leen Serigne Ndiagne may tëggal ba ma ko dalee tëggal it yàgg na mm-hmm. booba xale bu ndaw la mm-hmm. moom laa gis mu suuf musu musta changé géwal moom géwal bu ne teg nam dëndam mais dañ leen kenn rek Serigne Ndiagne ba léegi fu mu nekk boo ne ko géwal mun la Serigne Ndiagne te nga jik ko lool nag car macha ndax tamit yële nga ko kuti yóbbu ko ngónga waaw ndax euh, wax dëgg yàlla moom rek moo fi mbër moo xam ne mooy jóge fii dongale jëm ndakaar à travers le monde entier ñëpp di ko seetaan ci télévision yu mag yi mais sëriñ mhm. loolu lépp mooy ci wàccaay ci préparation ba àgg ca géew ba mhm. léegi nag ñu ne Modou Anta Gueye yaa war a tuus nga def say préparation teg sa cóol tiim say darmaan wër la foofu ana nan nga ni dugg see waaw foofu moom maanaam mhm. géwël rek ngay mën a doon foofu ndax parce que foofu bu taxawé ndaysan bu modou jakarlo yow nga tek soy xol boy tok foofu li nga jëk def rek moy jël ciul mi tek sa kanam tàggu mbaar ba sa yaram tang xam nga tàggu dafa am solo ci mi tëgg surtout tàggu mbaar mooy lan koy kay <laughs> tàggu non moom dañuy tàggul mbar sax na ciul mi ñëw fi ah. waye sën nañ fi te mom moy takumbar, mbaar <laughs> wax nga non bëgg dekk ci ku mu leer nañ ba Thiès xam lu ñom waaw xam nit ki nu am moo tax tey dañoo bëgg waxtaan bi ko ci cadre bu normal ndax gaa yaa ngi lay seetaan de loolu am ngay wax bu baax ci micro bi non li may wax ni ngi koy dégg tàggumba euh, li may wax ni dafa am képp kuy géwal mm-hmm. xam nga li may wax mm-hmm. ndax parce que saa yoo muy sabar koo teg mm-hmm. ndënd mi bu fekkee ni làmm nga war tek teg war ngaa tàggu mbaar ba dégg la te tàggu mbaar ci la ñuy nawee mm. ci la ñuy xamee géwal ma géwal yi mag yi xam yow ku nga wala mënoo dëgg la de gis nga boo ne rasa xeet ci cóol mi. waaw géwél bu mag bu toog sa wet dina xam ni kii loxoom dëpp na wala loxoom dëppul waaye loolu géer mënu koo xam. dégg nga de. lu garaaw laa lay wax. kilim bi bàyyi na waaw moo tax moo tax tàggu mbaa dafa am solo. ci lan lay nawe. maanaam mooy rentrant daal. mooy dugg si mooy léemu bi. <laughs> léemu xam nga tey ji sa micro yi boo ko yoree dugg ci làmb ji tey tasante ak say morom yi kii. waaw boo nee dama ni. waaw dañ xam ni yow mii. waaw yàgg ngaa wax ci micro. ñu bàyyi la ñu bàyyi la xel waaw ñu bàyyi ñu ñun dugg see ñu. waaw waaw ñun dañuy tàggoo ak Aladji Fa. waaw loolu la ñuy ab kaaj kaaj ñu ne suma salaatu wa salaam ala nabil karim. <laughs> ñu xam ni ñëw nañ. gaa ah, yi ñu ñëw na waaw waaye nag boo dee taj sa cóol ba teg ko ci kanam. ba rasax ba ni rasax ki tàggu mbaar li nga war a tàggu mbaar. waaw bu dugg yaan yi moom ba pare na. non sëriñ. bu dugg yaan yi moom diggante taal. diggante xam nga tey. non may ma tuuti rek. nga ñëwal ma tuuti ba dugg yaan yi moom di ngir yàlla. dan la xam nga loolu tey jii. waaw moo waroon am benn cóol fii ci sama wet. non ñëwal sa voix waaw dañuy war a saaxee. waaw war a tata ki tata bax tàggal ki kis tata tas war a tabax sa bi tata war a tata ki tabax war a tata ki ta kis ke kis dañu war a sa ki daj war a ta ki tata tal ki sa ba tas war a sa ki daj. gaa yi di tabrata ki tabrata ki war a sa ki sa ba tabrata gaa yi di jakkit jakkit foofu nak man damay dugg sama bak bi ma mom moy damay tag damay kañ sama bop ci demi, dënd bi deglu ko namay tagge ba ko waaw ayca ci que foofu bu ma tege ba ni war sa geddaaj war a ta daa tatal ki sa bataas war sa geddaaj man dama wara tagge ta wara sa bindaaj war wara sa bindaaj war wara sa mangi, war wara tagge ta wara sa waaw moy lan lol moy nar gadd jaaj njaña mangi njaña jaaj njaña mangi moy yow man rek ay sa ko kep ko sante jagn kuy biram siga baru baaru rek kooku yaa ko moom foofu lamb jëpp ànda do ni dung wa wa ni dung nga yew len ben nga do ben place wa mo doog dug nak yani mom nga so nga ñew nak wa yani mom moom mi def ay kiyam fofu mom xam nga li ma len xaptalu fofu mu xaptalu daw ñu tu comme soow mu ñu yer do yaayu fofu fofu sek <laughs> lu am solo lay wax ni euh, euh <laughs> bala mo ki ñu wax briefing ci xam nga sekk mhm. culture baa ngi dem billaahi mi ngi dem culture làmb culture làmb bi mhm. caada jeeg cosaan jaa ngi réer du ñu fekk de nañ ko indi ñun waaw nañu lànk mhm. ndax làmb nag suñu yëf la dëgg la te loo gis lu nekk dafa am lu ko ti lu ko yan lu ko lu ko yanu waaw xoolee bay ñun li ñuy li ñu moom li ko yanu euh, réer ñu ñàkk dañuy ñàkk xoolal lu neex lii waaw xoolal li sëriñ wax ci voix am bu ko sabari ande de nga sank dafa dafa bak ba ci ak ne gars yi daan ne lan gaay yi wuy si nañ ko ci biir tëgg mi waaw ta geddaj wurata kita tasarki saba tas sa gedda man ni tabra ki tabra taki wuram taki saba <laughs> tabra par gaay ni jàkkin jàkkin xama xama tous foofa toj lamb <laughs> dafa neexon ma mm-hmm. nga la koy wax legi mm-hmm. da nga dan tok ci lamb di tëgg ba caag mbeur dawa ci lang ni coppet sa cool daw ba ci digg lang mu ko tej ni ni talal ay loxom talal ay loxom foofu laa ne bala ñuy ñew ci lool lool am solo lool ngay wax. waaw départ bi. nga xamni fi lañu toll. moy liko sék waxé mm-hmm. sëriñ indi na ciol mi. teug na mom tàggu na mbar ba paré kañ na bopam duggu na ci lamb ji légui nak mu dess galañ bi nga xamni mom moy mom moy yañi mom muy galañu mbeur mi. mo xam fas la mo xam. ko la laaj commencé ñoo yaax mm-hmm. parce que dañu indi ay calligraphie sim sol ay mayo tent seeni bop oh. nek ñu duggu ci di fecc waaw di fecc lamb te fecc tous dama ne bokkul bokkul mbeurum lamb sek da daan bu daan dugg si mm-hmm. xamul lan no lay daan wax ni mbeur ma ngi ñew mm-hmm. wajaay jitu yor satal ak weñ waaw satal ak weñ nga bu pofton daw dugg ci biir mm-hmm. wër di sotti ñu ni ñi amateur yi setan yépp xam ni xam ni xam ni <laughs> xam mbeur ma ngi waaj waaw mi ngi waaj ñew bu fekkee ni ku mel ni bat sikila yalla ko yalla yërëm ñi ne ci biir làmb ji dañ daan xool xam nga sàkketu mbañ gàcce da daan am ci diggante bunt bi ak làmb ji mais ca kaw nga koy nga koy séentu sëriñ xam nga li may wax bu baax njool la woon moo xam ne bu duggsee ci làmb gi bu ne buxet mhm. da nga koy séen yow ca ca mbañ ca mbañ gàcce ga ca kaw dëgg la ba leen sikki mu sol ab xaftaanam mhm. jiital ci blouson seexlu tuuroo tuuroo am sow dëgg la hmm? waaxu dugg ci làmb ji mhm. bu dee papa as mbaay la moom dañ koy boot ànd ak moom sol dara ñu ñëw ba ci digg làmb ji. ñu ko fa bëcc ñu ko fa bëcc. mel ni suñu <laughs> mbay faal. tey faa ñu delloo si wax. wala mbay faal wala wala léeg-léeg léeg-léeg la bu dee mbay faal. waaw mën naa sol bolo bu duuru. waaw ñëw ba ci bunt bi ni fet ak poftan. wallaay bàcc ñett yoon ci bunt bi. daal di sànni daw daw ñaay. wallaay daw sànni. xoolal xoolal tey làmb ji. xoolal garab yàqu na yaxet mais sëriñ. Mm-hmm. loolu dañ ci doon euh, duma ko ne. ñam tuuti waaw non non <laughs> xam ñun ñaar dañu am ay ay système yoo xam ne ah. xalé reporter yi nek Thiès waaw dañuy dem ba ci ak ñu duma leen d'accord liñ dugg fi sax duma la dañ doon duma gaay <laughs> dañ ñëwaat suñu débat <laughs> légui débat bi fu tollon moy mm-hmm. yaang ci yaang ñuy mom légui wa ci mbeur mi jakarlu yow nga def tagu mbar mm-hmm. gañ sa bop mm-hmm. xalé yi wuy ci la nga yew nga sabari nak légui ba mu deuguer kenn ku nek présent nak kenn ku nek for nga sa tam xam nga lim lay jox légui fo jëm ak mbeur mi légui wa sama mbeur mom fofu buñ fa tollo damay face mom face tëggita ngura a ngura daabaaj a daabaaj foofu nag mhm. fi lay feccee mhm. fi la yaramam di tàngee mhm. mu faas ba yaramam tàng daal di xam nga tëggal ko foofu mu fecc ba yaramam tàng mu ni bëj léegi nag nga doog a dem nag wuraat tat ke wuraat mooy li ñuy waaj. Mhm. waaw bàkk bàkk waaw ñu tuus. ma xool la ni la ñaar nga jox ko. barke Serigne foofu nag. Mhm. sabar yi ku ci nekk am nga looy wax. sabar yi. waaw. sabar gu ci de. waaw ndax parce que foofu. dinaa il yeewaale xale yi. waaw waaw. ndax parce <laughs> mhm. léegi bu ne waraat. taxitaat waraat taat waraat taat. ndeer gi ci boppam. Mm-hmm. daa war a jàpp taamra ba jaax kit taamra ba jaax kit taamra ba jaax kit. Mm-hmm. yaa ngi dégg loolu. waaw kit col mi ci des sa ginnaaw. Mhm. muy talmbar naa wurantanta wurantanta wurantanta wurantanta wurantanta. Mhm. xam nga. Mhm. tunguni gi. danaan kintaal kintaal kintaal. kintaal kintaal ki jàpp gi. yàlla yeneen sabar jàpp wur ja ki ja ja ki ja ja ki ja ja wurat jaaroon ki ja wurat bu njëkk ba loolu nga daan. léegi yow col mi ci kanam. léegi col bi nag yow yaay yow yaay yow yaay. diriger diriger. wurat wurat wurat wurat kii gaa yi tuus. gaa yi ànd ak yow gaa yi ànd ak yow. urete urete urete urete lecture bër bi urete kii urete kii urete kii kii foofu mbër maa ngi jaayu waaw am na lu amateur yi wuy si leen ñëw ñun ñu ngi ci biir urete urete kii kii kii sa kii te urete urete kii sa kii sa urete mhm. urete kii sa kii sa urete mhm. ama léegi nag am na loo xam ne sax booy bàyyi nan ko xam nga ndax parce que <laughs> foofu buñ fa dem ba ci yàgg danaa jàpp wàcc sabari di mhm. waaw kiin waaw mbër yi dox mhm. jëm si ceew waaw ay ku mel ne ndeysaanam ay aas mbaay ndeysaan ay ñoom par leen si sikki ñu nga tudd léegi ay seexlu ndeysaan ndeysaanam waaw yor ñaari ah, fii yor fii seer fii yor fii kiin Max Mbargaan mi ah liiru jàng walaay kiin kiin juga si la kiin foofu mhm. maanaam dox bi muy jëm sax di la jib si yow moom day yëg mbégte yow moom mu yëg mbégte nga koy gàttandu waaw ndeysaan foofu la daan dikk ba dikk ba teg loxoom ci cóol bi. Oh, jàpp ci ñaari peg yi. ñaari peg mhm. tey gis naa ci xale yi koo xam ne dina dongali boobu ngay wax maanaam ci boobu. waaw booy ñaari dégol. bu ñu demee ba si foofu. waaw koy gis mu dox nag. gaay topp ci ginnaaw mu jiitu. waaw di dox bar bar benn tànk. ci kóot maanaam ci kóotu. jëm jëm jëm ca sabari mais léegi nag instant bi ñu toll nii. Mhm. affaire yi day changé. Mhm. ak booy yi léegi bu ñu demee ba tuus ñaari tuus. Hmm. dañuy taxaw nag dugg collégraphe. dugg collégraphe waaw. loolu nag. fecc nag fecc na fecc sabar léegi. waaw léegi xale yi léegi. di Serigne Diagne wax. bu ñu defee nag léegi ñaari ñaari bàkk yoo xam ne indi ko ci aada rek dañ di gedd ci saa saasi. Hmm. léegi nag indi nag ay bàkk yoo xam ne mais bàkk yooyu xale yu indi léegi Serigne ci ci ci làmb hmm. est-ce que tamit bokku ci loo xam ne ëllëg mën naa na saxal suñu culture bi. parce que am damaa déggoon mag ñi ne am na ñoo xam bu musaa na ñëw bu mbër mi tuusee pare dem ñi dem nañ ñibbi. Mhm. waaw bu tuus baaxatul ñoo ñëwatul làmb làmb du yàqu. waa xam nga sànq ñu may dégg maa ngi wax El musa Moustapha ma ne ko. Mhm. làmb dafa am dafa bari fay façon. Mhm. am na ñoo xam ne buñ dikkee ci làmb ji. tuus moo leen indi. am na ñoo xam ne way moo leen indi. am na ñoo xam dëkkante bi moo leen indi. am na ñoo xam bëre baa leen indi. kon maanaam tuus mi tamit chaque jour. ginnaaw tamit àdduna day dox. waaw te chorégraphie tamit ñëw na. xam mm-hmm. mënatoo ko fee génne. waaye tamit ñuy xool li ñuy fecc tamit am na ci solo torop mm-hmm. waaw fecc bi. Mm-hmm. bu dee bàyyi faale am na solo. waaw feccum làmba ni mel. mbër moom mbër moom. mbër nga war a doon. waaw waaw. feccum làmba ni mel. waaw waaw chorégraphie am na solo. waaw ceebu jën daa mel deful dara ci làmb de. ah déedéet daf ci dara comme xale yi xale jël nañ ko. am na ci solo mais bala ngay dem ci loolu dangay ngay wane mbër gi. waaw wane culture cosaan bi mm-hmm. wane aada yi. Mm-hmm. jaay suñu cosaan wax naa la sànq ni la mbër artiste la. Mm-hmm. mbër da daan way. maanaam bàkk boppam. waaw kañu. ci lañ jëm si élage mi ngi ñuy préparé waaw. jërëjëf ba mbër da day day tuus fecc la. loolu ci artiste la bokk. ba pare doog a sëgg bëre. sëgg bëre gi moo mujj. te bëri bi yàggul. boo daanee ñibbi buñ la daanee nga ñibbi. yàggul yàggul lépp buñ ko boolee buñ ko tënkee dix dix la. Mhm. grand combat ak cinq minutes muy vingt cinq minutes. Mhm. te trois heures la lamb di commencé sec. Mhm. ba vingt heures kon lan moo ji lan moo fa téye nit ñi. loolu nag lan war a defaraat El Hadj Moustapha Ndiaye xam nga tamit li ñun li ñu rey Thiès mooy que ni Serigne Diagne mii ni mu mel. ak culture bi mu wane tey Thiès nekk Thiès est-ce que jotul nag bu làmb jotatee fii Thiès ñu ni ah donte benn dix minutes la. bonte benn dix minutes la ñun dañuy bàyyi Serigne Diagne ak dix minutes mu indiwaat aar cosaan ci làmb parce que bul fàtte ne gis nga noonu muy tege ay tambour major am noonu muy tege ay peesam xale yu wër ko mu tëgg tëggum làmb waykat ba romb ca ñu way làmb ji saj ji di ngot neex lu mat quinze minutes ñu bàyyi àggaat ci benn programme loolu tamit lu baax la ci làmb te mat nay bàyyi xel waaye léegi dañuy ñëw tàmbali làmb rek di profitoo bu mbeur yi tous am ñuy nyari bu ko defee ñaari culture duggante nañu waaw bu kii di tous am kuy bëre bu nuy way am na kuy wax bu ko defee foofu ñun ñoo ngi jaxase suñu culture mais benn bu ci nekk buñ ko doon organiser heure tous ñu bàyyi mbëri tous bu mbëri tuusee ba nopp ñëw ci géew bi kenn ku ne dem ci cimikaay wala kuy dëkkante am ci couloir dem baat bi sifflé ñu Serigne ak ñu ñu sagalante tamit ci biir ji ndax bul fatani benn Pape Doumbia ñëw ne ma nga tribune officielle dëgg la toog di parrain yël xaalisam def ci làmb ji foofu ci boobu ñu kan lañ ko war a bàyyal géwël yi la ñu jàkkaarloo moom gañ ko jiim ko comme neen gañe mbër mi avant muy dugg si ci géew bi mais léegi nag dañuy jël làmb ji yaa ma gën a xam te loolu wax dëgg yàlla jot na ñu defaraat bu baax a baax xam nga xam nga poñ bu am solo mhm. ci làmb mhm. daam jamono dama doon wax ni làmbi Cees am na gàkk-gàkk mhm. dañ ko war a fóot waxin la déggin la laaj. déggin la laaj. gàkk gàkk bi mooy lii ngay wax nii. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que nit ki bu bu bu bàyyee li mu moom rek. lu mu mm-hmm. dem lu nekk da koo jéggaani. da koo jéggaani waaw da koo jéggaani. kon ñun ñi koy def. muy amateur bi. muy reporter bi muy promoteur bi. muy kii bëre war na ñoo xam li ñuy def lan la. mu ñu teg ko ci yoon. suñu culture. waaw ñu teeloo ko waat fa mu nekkoon muy fii muy wax nii. ndax làmb dafa am yu mu yu mu composé wax nga ko léegi. waaw kii dagg béyam. daa am lu ko indi ci làmb ji. dëgg la. du benn rek ku fa indi daa am lu ko indi ci làmb loola daan indi amateur li nga wax bokk na ci li daax amateur. amateur hmm. ñëwatul ci làmb. ñëwatul ci làmb xam nga ñan ñooy ñëw léegi. fan sa club yeeg ak supporter. ak supporter mais amateur dikkatul làmb. Hmm. amateur ah, amateur néewul na yàlla na kenn daan. déedéet. amateur daa ñëw rek xool si. xool si. amateur daa ñëw rek sañse defar. waaw ah. parce amateur dëgg El Hadj Moustapha mbaa xam am na ñoo xam dañuy jël jël li gën a rafet seen gaal cëppoo ko ñëw ci làmb ji. Hmm. waaw. waaye lu muy loolu dañ teg foofu suñu baaraam hélas xaaral sëriñ yow la ñuy ubbil beneen parenthèse pour dugg ak yow ci deuxième partie ndax arbitre sifflé gul bu arbitre sifflé wala balaa arbitre sifflé sa mbër ñëw ba ci yow kàddu bu mujj yee ñaar géwal ak ak mbër waaw arbitre sifflé sa mbër na ci biir géew ngeen répété woon ko la graaf yi ca écrit ba nga demoon cib sëriñ mhm. ànd ak say naw ñëw ci làmb ji kee ànd ak nawleem ñëw ci làmb ji ngay géwal kële te amul géwal kenn ku ci nekk nag di tëggal sa morom ci diggante boobu noonu dina ci waxtaan ak ñun pour wan la géwal dafa am cër ci làmb ci loolu lañ jëm si waaye lu muy loolu nag nan ànd ak euh, El Hadj dem déglu tuuti bàkk moom góor gi Njaay tey dañoo indi facette làmb démb la indi tey <laughs> ndax xale yi nee naa leen ba ngeen weewu ngeen defarwaat de bu <laughs> ngeen defaraatuwul di ngeen xam ni laajoo ma tey sama compati ma de ah non laa ngi ñëw da am ilaahi jàmm rahmaani jàmm rahimi jàmm yàlla jàmm yàgg sekka njaay atumaan ma njaay ngoon ni tënga géej abu dem ma bàyyi maar ma ñu jom jabax ko fandeen maa ngi jooy ongo ñaag mu umi njaay mi ñu lippee mu umi la kere mbaaxaan ma des jungo ya maana salla njaay ma xëro jëbuur géej ak mbay njaay ma des ba bismillahi fenkale menkale fenk na ci jant yàlla bi yàlla mottali fajar majar tarfin moo di këng so loxo mexe moo loxo mexe abdou karim abdou karim tuf na góor tatar na jigéen kan sun kaf sun dubukin dubukin dubu fa yàlla bismillahi fenkale menkale fenk na ci jant yàlla bi yàlla mottali fajar majar tarfin moo di këng ali muhammadu wala muhammadu kumba sara Guru guru dumbe Guru tamba dumbe jasiki tamba dumbe jasiki tamba dumbe kufrun toke kufrun toke takasumu toke takasumu toke luy metti toke la tandiri tandiri ngafu ngafu fardan fardan mana. alay nabi jamma toke alay nabi jamma toke yen digante nit ak jinne jaan kaya fi subulum musulum dundulum dundulum kondolum kondolum maymuna tenk sere menk sere ajunata farlel dawarani min kur dukoye dukoya lam da fañ da fañ kalku mukk misal wal jole kumbangali séeréer sango ñi dëkk dëbbu ndakam ñoo bënul soose ak si ñu fu woon li ma yàpp sey ko ci njànja fanaan ko ci ween bu laan ko ci réew suma dalo mu tas kañal du ko fajj yalla def nako sama dole sama xarit suma jaxé ba lambako sama xel dal sama yombalaw sama naajo tóortóor sa gëleem tukal sama ko sax sama jigéen jamu tuñ kon lu may teree réew bër mu ndaw mu ma tollool ya xam ndigg ak baax mbaate mbër mu mag mu ma tollool ne xam digg ak baat ba jàpp ci xelam mbaat baaraam ba tëg bakkat bu ñu rëfoo nga xam ne maa bari doole maa dim waagu ñaay rek maa géwél dolli maa géwél dolleeti maa géwél gooto gooto yàqul jëri xam nga ni ndaa naan laa man isaa yu jax ndukul dal la sama yaay noon na ma sama baay noon na ma maam góor gi boo jàpp dee mbër ba muy jooy bàyyi ko saa coon bëgg a dem mbaa nga def bagaar nara raw express jóge xaay rappala ba tiim soo yeboon na nga toog te xam jàppees nañu la man su may bëre gis nga su may bëre ñi may àndal dañoo rafet yéwén dañoo taalu tabe yàlla ak yonent ba ak Cheikh Tidiane Serif Mathia Fass kii ca Baxtar Bamba sa Touba Limaamu Laay Yoob bukkul taa nga Njaasaan Alaaji Malik Tiwaawan béy si borom Tiwaawan Abdul Aziz Tiwaawan soo ma nee taral xam Seydi Jamil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 Aliou sama xol fees na waxal. <laughs> xam naa jàpp nga daanu nga. waaw ah, macha allah macha allah. Ah. xam nga sëriñ mm-hmm. euh, euh, liñ doon waxtaanee léegi rek. moo nekk nii maam góor gi confirmé na. dëgg la ak géwal baj géwal bi. wallaay wallaay wallaay. nga dégg mm-hmm. ni muy waxee. Mm-hmm. mais ki jàpp ki koy tëgg. ci maa ngi koy tontu. waaw. ci maa ngi koy tontu. gaa yi yeew sabar yi. mbalax ma fa mu téye. buusewul bentar kay talmat ma nga ca ginnaaw mais ci mi dirigé. lu maam góor gi wax rek tontu na ko. muy wax lu ko saf. muy wax lu ko saf. Mm-hmm. saa yu waxee di nga dégg maam góor gi di nga dégg cool ma. kon xanaa looloo waral léeg-léeg waay bàkkukat bi daan wax bàkku ba mu yàgg mu ni mu ni géwal bi. Uh-huh. bëgguma tëggum géer. tëggum géwal laa la laaj waaw da ko boobu ma ngi koy jubbanti. waaw ma ngi koy uh-huh. jubbanti saa yoo déggalul nag El Hadj Moussa Kaye ma sàcc wax la. Uh-huh. mooy géwal uh, jàdd na ci garab. am na ko ruube. am na ko ruube. moo tax mu wax ak moom. moo ruube ci biir bàkk bi. yenn saa yi mën na. wala mën la goto goto yàqul teeru bay. xam nga ne ndaanaan laa. foofu boobu foofu xam nga ni kooku dégg na. Mm-hmm. Mm-hmm. bin ji nag léeg-léeg mu ni te bin rek laa la laaj bin. <laughs> kin kin kin. bu ko defee eh. <laughs> nga boo dee commencé nga naan kin ki da yaa ngi dégg waaj bu yàggee bu demee ba ci digg jàpp kin. kin. maanaam tëgg moomu. maanaam dafa yar woon. dëgg la tëgg dafa amoon respet mm-hmm. mais tëgg mi léegi na ma yàlla jéggal jéggal si ma. Mm-hmm. àdduna day dox tamit. dëgg la xam dëgg la mais respect bi tamit war nañ ko di ko jox ñu moom. dëgg la waaw parce que sabar dafa riis. billaahi dafa riis. Mm-hmm. te moom man moom. dafa riis dafa riis man faa ma foor benn cóol bu rafet. El Hadj Moustapha Ndiaye. waaw di xool fu ñu koy teg ci plateau bi waaw. désormais bis ni ki tay ciul da wara bok suñu suñu da euh, ciul dafa war a bokk ci ak mbëmbëng. Mhm. mbëmbëng pek gun for mhm. moo bamu xam nga ma nga la koy wax ni la ma ngi bok ci ben asas bo xamni ni. ma ngi ñew mhm. for gi. ma ngi ñew waye tay ñu bañ yaq suñu waxtaan ndax tay dañ koo yew bam ni ngoddu comme ni ngay yew sabar yi. <laughs> xam nga yow mo ñu koy gis ni yeen say yar mom tang ci ci ci géew. ba nga tollu fële joxar bi ko ñaari jundi du ko bëgg. ndax fa fa mu jëlee tëgg ma muy nooy mu yóbbu ko ba ca kaw mu wow koŋ géwél du yàqum tëggam ko yàq moo tax tey jii bëgguma nga yàq dara suñu waxtaan euh, ko yàq Moodu léegi tuusal nga ko waaw tuusal nga Moodu mm-hmm. ba amateur yi ak fans club yeeg ñépp xam ni moo Modou Anta Gueye tey indi na lii waaw mi ngi ci làmb ji dig digal boobu noonu tuus nga pare dellu nga sa cimukaay toog yàgg say darmaan lan moo leen war ci làmb ji non fofu Manam mhm. il faut mu am luma leral tuti mhm. na parce que Modou bu tousé ba paré dafa am day fecc bakam day fecc bakam xam nga ku ci nek da nga créer sa mbeur waaw yalla may la euh, ba nga tol fi nga tol ba sa waaw xam nga Balla ni ki ki ki pecé mhm. wa modlo ñew ni war a taataata war a ki taataat mm-hmm. dafa siiw moo dem na ba tollu dégg daali moo tax bàkkam boobu siiw. Mm-hmm. moo du bàkkam bii ma ko tëggal. Mm-hmm. damay ñaan ci yàlla bis bu yàlla demee may ko mu doon roi des arènes laa koy ñaanal. boobaa la ñu xam li ma ko tëggal mooy lan. parce que foofu tey jii. am na fa boo toolee boo déggee rab bi dab rab bi dab rab bi dab rab bi dabax ca raw rakki terañ gars yi ni kiit mbax ce wra kiit ca raw rakki terañ maa ngi koy dégg fu nekk nag kiit kiit ca laa kiit wra loolu muudu antaa moom waaw dellu ci te sëgg ci micro bi dañoo bëgg xale yi xam waaw eh, loolu maa ngi dégg fu nekk waaw waaw ndax parce que bërki démb damay dem benn kon waaw ko moom dafay jaadu damaa dem benn benn mbër bu ma doon teg mën a sàcc ma ñëw mbër bi ni ma lii laay bàkku mhm. mais bi mu ko bàkkoo sama xal dafa sedd ma xam ni. lu yàgg lu ne. Euh, dina mas a ñëw. dëgg la bàkk boobu Moodu Anta moo ko moom. loolu man maa ko créé moom moo ko moom. waaw léegi ginnaaw bu tuusee ba pare. indi waaw loolu loolu moom mooy li nga xam ne moom lay njëkk a fecc. muy rab yi daw rab yi daw rab yi daw rab yi da baax ca raw rakki darañ gaa yi ni génn mbaax ca wuraay kin ca raw rakki darañ te <laughs> da wuraat kin ca laa kin ca loolu ah, leneen luy ñëwaat ah, yaa ngi bu ñuy <laughs> amee combat lu may changé <laughs> loolu du ci bokk loolu mooy hymne mooy hymne nationalam d'accord waaw loolu mooy moom comme ni ndigal bi doole woon seex ndigal waaw seex ndigal boobu doolay bàyyi faal seex ndigal kooku mooy pied ah. xam boobu nag moomu ko da koo tëbb kër seera fa kooku maanaam mooy Baye Fall gi gi mais lii mooy li nga xam ne ni tey jii mooy bàkkam boo nee woon bàkku Balla ñu ne kii da sabraat xam ni Modou Lo wala leneen ak leneen mais Modou dafa loolu moom moo ko moom moo ko moom boo jigee foofu nag nga ko dugg ci ay bàkk boo egsi ci ba egsi ci seex ndigal bi. seex mhm. ndigal chaque jur mooy tëj. mooy tëj waaw. Ah, waaw dëgg la. waaw seex ndigal ba lu boobu mooy tëj ñu tëjee ko njuub mu saf saab. waaw bàyyi lépp ci la waaw waaw ndigal seex mhm. ndigal boobu kii mu jaaw yaramam tàng moom di mën nekk ci kii bi. Mhm. jàpp ci jàpp coono mi ngay tëggee yow ci lay jàpp. voilà voilà. waaw loolu foofu mbër bu fa accès ba jàpp. waaw yéen ñaar. da ngeen di wax. wala foofu yaramam day tàng. da nga mm-hmm. xool boo ko xool da ngay xam ni kii fi mu ne tuus na ba yaram tàng. man it dëgg naa ba sax yaram. tàng mel ne ku laal ab seeg. waaw nga gis cool mbër mi bu nee nit sa peeg sabar gis ni son bi sax wa changé ndax parce que peeg boo ko bësee. da koy seere waaw da koy seere. Mm-hmm. foofu tamit da ngay delluwaat tàgguwaat mbaar. Mm-hmm. duggaat yaar yi moom foofu nag moom digg digg Modou bu taxee danaa ma duma ku mën sa morom duma. waaw. parce que sot Sopina sopina soppi na sa melokaan yow géwal mhm. waaw nga soppi melokaanam waaw mu tooy xëpp ñëw ci yow taq rip bilaay sax tëgg mi changé tëgg ndax tëgg mi ba ngeen ba ngeen ba ngeen tàmbali daal ma ba xëlul xamul ñu waxe te mu ñëw téye pegg mu wow nga waaw dugal ci ngéwal gi faaw ñu ci dugg <laughs> mhm. foofu sa yaram day tàng yaramam tangana, na mhm. mbër mi sentir de booba da nan wax naan euh, nday doom mais duma ku sa morom duma jour ko jëkke wax la ne ko xam ni kii gaynde la ah, boobu yaram waa rek mu genn fo barke borom touba mbake gaynde la nga di ki daj ki ta borat ki daj del musiki xol la mais fofu yow di nga xamni waji tay mo ngi ci lamb ji mi ngi ci lamb ji wala néew ci wala japp nañ ko ci gàllaaj wala japp ñu ko yow man yow geul bi di nga di nga am lo ca yeg yow bu baax hmm. modou hmm. non benn yoon laa sa yëg ñàkk yëg ci làmb muy làmbam ji passé te loolu xëy na mooy li gën. dëgg la barke Serigne Saliou Mbacke booy bu nu àndee ak man làmb sax dañ may ree mhm. ndax parce que damay concentré wu ci Modou Anta ba nga xam ne nii bu sumee koo rek sama xol day sedd. waaw da ngay xam ki nga indi mooy kan xam ki ma indi. Mhm. ba pare ralaas non Modou Anta. Mm-hmm. yàlla na ko yàlla lafal cat. Mm-hmm. mais ci nga ni combat bu mujj bi combat bu mujj bi loo ci wax nga ni ci nga ñëwee. waaw ci laa yëgee man. Mm-hmm. yëgu yëguma sama bopp. waaw ci laa ci ñëw yëguma. yëgoo yëguma waa gisuma sama bopp. ndax ndax da ngaa découragé wala da ngaa non non dama dama dama damaa la ma daan yég da ngaa yoram. waaw waaw ndax parce que lu war a am rek. maanaam li naan lu dal ci sa kaw rek da nga ko yëg. waaw dama ko yëg ci sama yaram. mais à part ça yeneen combat yi yeneen combat yi déggoo li ma la wax moodu bu ma ko séenee mu ñëw ndeysaan mu ne cëpp ba dongal yi waaw ba robanteeg mbërëm yi noonu seeram tàng yow itam foofu noonu xool su ma dama naan gaay boy ne fii bu leen leen may dara mu dugal xamal nag mhm. gis nga jóge fii yor say sabar dem dakaro mhm. boy bari na lool mhm. mais man lamb yi ma doon dabay lamb risque la ndax moo ànd ko xam-xam lamb risque lay jël dëgg la dëgg la ay géwal yu mag laa doon taseel. Mm-hmm. géwal yoo xam ne ni su ma duggee léeg-léeg ñu xam ne dañ dañ ndax parce que Dakar benn bopp lan. Mm-hmm. dañuy sotante seen biir. dañoo mën a sot yow nga jógee Thiès yow doon sël. cundum mm-hmm. waaw cundum waaw ñoo saay saay. waaw moo mënul li ngay def amoo xel amoo tamit dégluwoo mag ñi doo dem. moo tax làmb maanaam dafa garaaw. ay mbapat de waaw des fois nga mbapat mm-hmm. waaye nag sant nañ yàlla mm-hmm. min yàlla may ñoom ay waajur yu baax mm-hmm. ay mag ñoo xam ne dañ fiy jiitu jiitu ñu ci làmb ay baadembaay ay dut pen sam papa barki demb rek laay waxtaan ak moom comme euh, pa bi ma gis nii sànq mu gàddu tama ji mbër mi jiitu waaw loolu xam lu ko waral soo masaana am làmb ñu ne aram làmb njàmbe am na làmb mbër mi tey ma ngoy solo gëñam sekk ndaanaan waaw bu wëree ñëw. Hmm. tamakat moo koy jëli. xale yi diiraan ko jiital ko. Hmm. xale yi topp ko. dëgg la. Hmm. loolu moo mu indi amateur ca làmb. waaw am na ñoo xam ca bis ba la ne xam ne làmb jaa ngi ni ñu topp ca dem seetaane bay buub waaw. da daan buub. këf nit ñi ko defee fu mu romb rek. Ah, buub ñoo ñu yóbbaale boobu ñoom ñoo yóbbu. ajo sëriñ. léegi arbitre woo na Modou ci géew bi. xam nga tey par étape koy def. xam nga fii sànq bàkk bàkkal nga ko. ñëw na ba jàpp ci peg yow léegi aalu nga moom aalu na. Mm-hmm. delluwaat na ci mikaayam ba toog ba di ngoon nag ba làmb ja jot nag léegi. Mm-hmm. sa mbër nga indi ko préparation bi di mu yàggee. Mm-hmm. nga fooral ko sol mu bees. sol yére yu bees. waaj waacaay gu bees. waa ni far ci digg géew bi nga wéet lool nag yaa tëgg mi tëgg mi sax foofu ku am dégg-dégg xam ni di nga ko tëgg waaye xol nga koy tëggee. diggante boobu lan nga mën a waxanteeg moom ca géew ba mu lay dégg. no digënté bobu mom mm -hmm. man ma jël sama bagage ci bop mm -hmm. ni kat yéen ñep japp len cheikh ndigal mm -hmm. doolay bay faal cheikh ndigal mm -hmm. sa yu muy tëgg sa yu at bi ne për moodu saa yu nekk ci digg la laamuj bo dégloo da ngay dégg man ndigal mm -hmm. cheikh ndigal fofu rek lay japp ba korok lamb ji ji ba korok muy daan nag kitat kitat rat kitat boy sax dañ may ré sax man len japp len fi rek bu len leen bàyyi waaw ndax parce que loolu rek laay yëg. waaw ndax parce que ay Baay Faal lañu. Mhm. jugee penc maam Cheikh Faal. Mhm. kon maam maanaam non seex ndigal jooju ñuy def noonu. Mhm. non loolu rek la foofu rek laay jàpp. parce que waaw doon mooy jàpp. waaw man man man man xamtalam. ci xamtalu Moodu. waaw waaw voilà jëm. xaw ma mi ngi koy <laughs> ma dégg ko. man foofu rek laay jàpp du ma bàyyi. di woote waale wàllu. waaw ah. <laughs> <laughs> maanaam maanaam gisee nit. Hmm? bu la joxee cër da nga ko koy delloo. Mhm. ci tàll laa nekk léegi dama koy tuusal ba pare. Mhm. ba mu war a jóg ni ma nii loxo yi. dëkk lay loxo dëkk may loxo yi barke Serigne Sall ni ma ñaanal. foofu sama ñaanu ñaan bi mhm. ma koy ñaanal sax sama yéene lay doon ndax damay xam ni kii xeebu ma. sa xol ko jëtti. waaw waaw waaw ndeysaan waaw moo tax moo du maanaam kenn la ci man daal. ndeysaan waaw kenn la ci man sama rakk la. sama xarit la sama lépp la. te tamit damay déglu bu baax a baax a baax. mais géwél dina conseil bu baax. bu dee <laughs> bu mbër mi war a dem ca géew wala làmb jëta mu ni ko téyel sa bopp. Ah. wala wala songal wala dóoram non diggante boobu maanaam am na foo xam mbër bu fa toll da nga koy bàyyi. Ah. am na ñu koy conseil am na ñu koy kii mais li la war sa diggante ak sa mbër mi ngay tëggal. Hmm. avant ca làmb ja. Hmm. ak yooyu yëpp mën ngeen di ko waxtaanee ci répété bi soo leen dikkee ci fi ngeen di répété. Hmm. li nga bëgg mën nga ko wax sa mbër mhm. sa mbër li mu bëgg mën na la koo wax mhm. ba yéen boo leen demee ca làmb ja yéen soo leen xoolantee ci bët rek ku ne xamante li nga bëgg mhm. mais conseil ak affaire yooyu dafa am ñu ko moom waaw dafa am yow daal la ngay wax ci avant làmb lay doon waaw ngeen ñëwee nag tëgg ah, waaw bu demee ci tëgg mi nag ah sa mbër mën naa bëgg dara dikk ni la lii laa bëgg nga dellu foofu yow mën ngaa bëgg dara ci sa mbër woo ko mu ñëw nga ni ko lii laa bëgg mais làmb daal maanaam. dafa doon hmm. loo xam ne daal xale yi bu ñu ko caaxaanee. tur tur ko yu ndax bañ na ko ba ni làmb waaye tey El Hadj Moustapha Ndiaye mbaa gëm nga ne émission bu nu mu a def hmm. man bii dama ko yëg sama biir xool de ndax dañ cee waxtaan ak suñu mag mu delloo suñu suñu aada delloo suñu cosaan hmm. delloo suñu xamal ñu sax tey ana dëgg-dëgg géwal nan la mën a taxawee ci kanam mbërëm bu arbitre bi sifflé waaye tey ji vraiment. faaw ñu rendre hommage suñu papa yi nga xamante ni tamit ñu ngi won fi ci Thiès ku ci eh, père ki ñu tuddu Pen suñu papa paté mbay ñoñu faaw ñu leen di ñaax. di leen ñaanal. ndax arène Landing Njàmbe gi ñuy wax suñu papa Dut Pen mom nekkon na ak papa Serigne Diagne mi te ñoñu yaakar naan ci ñi indi sabar Thiès euh, kenn mënu leen ci génné kon tay buñu démé ba mbir mi tollu fi jot na tamit ñuy waxantale suñu biir. Mhm. di fàttali nañ tamit ñu ngi seen télévision régionale prestige seen émission galgal xale yi. Mhm. tëgg neex na tëgg neex na am programme neex na. Mhm. waaye aada cosaan cosaan nañ ko jàng ba mokkal ko téye ko bu modernisation ñëwee nga ànd ak moom lu réew mi laaj nga def nekk ca teewul boo toogee ñu laaj la sa culture sa aada nga mën caa wane ñu ñëw nag ci po fort. sëriñ. ñu dugg ci fort ndax suñu waxtu mi ngi waaj a xola forum legui El Hadj Moustapha ak forum bu ñëk li nga wax mbeur tous ba ñëw ba ci japp ci ñaari pek ay peeg fekk nak sabar gi am nay pek waye solna na ay yére. Mm-hmm. sabar gu sol yére ami pek muy mees ay mees. waaw tey jii xale seen for gi ñuy for sabar yi est-ce que sax bokul lu ci lu mëna yaqal mbeur bu demee ci géew ba ndax tay bo jëlee sa for for ko ni ko sa sabar sabar for ko ni ko war for. foore ko ci harmonie mu laaj. Mm-hmm diko diw ci rek mboolem lu mu soxla nga defal ko ko yow nga joge fele indi sa mbeur tamit respecto forme hmm. nga kan loolu mun mun mun dëpp ay rawani mbeur aladji mustafa ngay hakay hakay loolu xam-xam la mhm. gis nga sabar gi mhm. gi géwal bi di yor di teug mbeur teugal mbeur mi mhm. day daan mbeur waw day daaneel mbeur mi nga indi xam-xamu lamb la dara du ko dindi gis nga maa waxtana ak mak mu ni ma ba ci géwél bi tuus seen mbër mi cool mi mu yor mu mu mu kepp ko tëral ko baaxul baaxul ci mbër hmm? waaw waaw daf ko war a teg dëj ko toog tiim ko toog tiim ko waaye képp ko tëral ko di tëgg loolu du seen bu baax bis yàlla sax ñu gis ko ci làmb ji mooy <laughs> mooy li ngay wax ni suñu message boobu ci foor geeg hmm? préparation beeg loolu lépp ak sabari tey ji waaw sabaru tey maanaam doy na waar torop ndax parce que boo gisee booy léegi mhm. fooru jémbe la ñuy for mhm. def ci toile léegi loolu doontul sabar jémbe la ndax parce que tubaab bi boo ko tegalee mbëma ngi léegi mbalax mi nga foor ak fooru jémbe du la wax li du la wax sabar la daf naa la see jémbe mhm. mais foor mbëmbëg dafa dañoo am suñu culture bopp li nu moom mi peeg mees ak xiir waaw da ngay dem yatt déggoo ñu la lawbe bi moo koy yatt géwaloo koy fóor tëgg ko mhm. lawbe boo ko yattee dañu koy jox su na ko joxee dañ koy bënn juróom-ñaari bën-bën mhm. wutal ko juróom-ñaari peeg mhm. wutal ko ay mees wutal ko xiir wutal ko fer fer fer day am ak fer waaw ndax parce que sabar gi day am peeg am am xiir gi ñu koy wëral am fer gi loo ko wutaat mees gi teg ko ci kaw. teg ko ci kaw waaw. nga foor ko teg ko. bu wowee nga xëcc ko ba mu ñëw nga yéegal ko ba mu wow nga xoos ko ba mu set nga tëgg ko nga xam ni li soxla lay jox. der la der der la. der mhm. bëy waaw deru bëy bu mhm. baax ngay jënd. Mhm. wat ko ba xooj ko ba mu kii nga wat ko ba mu set. jël sabar gi diw ko ba mu doy xëpp. cool boo ko masaana jënd. am na boo yoo xam ne sax xamuñu waaye dinaa ci joxe tuuti xam-xam. muy doon cool mu bees. da nga daan di wut kayitu solay dugal ko ci biir cool mi taal ko. ba mu tàkk ba saxaar ba génn. nga boo koy diw da koy booleek dugubu suuna. ak xorom ci biir kii bi ngay booleeg diw bi surtout ko ci biir cool mi. taal ko. fekk yow def nga taxal nga sukkeeti solo yi. ba pare taxal nga solo ba mu wow ci biir. waaw waaw moom kii waaw. nga jël xorom ak dugub suuna. waaw dugub suuna def ko ci. ak diw tiir gi nag diw ko ba mu tooy xëpp. teg ko tuuti ci naaj bi nag bant bi naan ko. yaa ngi dégg cool mi sànq coolum paa bi ngay dégg ni bi muy baax dañ ca leen dañ cay dellu waaw yaa ngi koy dégg cool mi li muy jooy mhm. sa yaa ngi ko tëggee da nga koy dégg xam ne cool mi dañ koy diw dañ koy diw waaw bant bi daa naan ba maan bant bi daa naan ba maan da ngay dégg son ba mhm. waaw di nga tëgg ndënd xam ni tëgg ndënd bi dafa tëx ndax dafa mar diw. waaw géwél bu mag bu la rombee daal sa ciwal mi daa daa daa tëx xamoo ciwal mu tëx yow. waaw am ciwal mu tëx dafa mar. dafa mar diw ngay dëgg ngay dëgg bavarde bi rek waaye doo xam li muy wax. mën nga tëgg sabar mu teng. Hmm. billaay xam ni sabar gi wow na kooku mais. Hmm. dafa am lu muy laaj daa mar. Hmm. mbaa amul ci suñu eh, eh, sabar yi nii. moom doo nga fi des. non moom doo nga fi des man man gëj naa dëgg ciwal mu baax dëgg dëgg de faaw ma fekk ñoom Serigne Diagne Abdou Khadir Thiol nu mu tiim na ba màndi Abdou Khadir daan daan daanan la waaw daa jàng ci mag ñi mhm. xam nga léeg-léeg booy damay toog ñu naan ma ay waay sëriñ Diagne ak Abdou Khadir mhm. loolu est-ce que man leen ah ba léegi de mi ngi fi mais dafa am loo xam ne nii maanaam dañ daan tëgg ñun mhm. parce que dañ daan dañ daan tëgg ndax mag ñee ñu jàngal ñu jàngal xale yi kon xale yi war nañoo mën a jàng jàng ci ñi toppaat ci ñi daan topp ci ñun. Mm-hmm. am naan xam-xam boobu. Mm-hmm. mais ñeneen ñi ñëw am na loo xam ne xamaguñ ko. Mm-hmm. te dëgg war ngaa mën a toog foo xam ne saa yu ne la damañe rek. non war ngaa war a wane sa bopp. nan déglu cool tuuti. ayca hélas ah. nan déglu cool cool lu màndi. cool lu màndi cool gunu defal dugub suuna. Ah. taal ci solo ci biir. Ah. diw ko diw tiir ba mu tax xëpp bu njëkk sax daan naa gis daan naa gis magi géwël yi bu ñuy porté cool nii. wala ak sabar damay gis ñu jël genre mouchoir wala genre sarbet di ko gàccoowaale. waaw ndax bañ diw ko. bañ diw tiir gi taq. seen yére voilà gisatuma ko. Euh, loolu ko daan indi. léegi nag xale yi dañuy jël léegi am mouchoir gàcce ñoom seenu ñaq leen ñor. Hmm. waaye diw tiir ga leen taqal amatul. <laughs> sa tëgg yàqu na hélas. <laughs> nañ dégluwaat cool tuuti ci maam góor gi Ndiaye nga déglu suñu mag Serigne Diagne wax. may ma limal leen ko nax daan Modou Ngor Sarr maa ko nax daan Doudou Yaaya Sarr maa ko nax daan Laajal Absa Sarr maa ko nax daan Ancu Sarr maa ko nax daan Pierre Teneng Sarr maa ko nax daan Dax Sarr mi ñëw soow maa ko daan Njawar Sarr maa ko daan Masiré Sarr ñaari yoon Doudou Bakar Sarr ñaari mako nakhdar, la daan laa jël Moussa Ndour mako nakhdar. nga laaj Lamine Ndour mako ko manam limi indi ni sax manam sabar gi mi indi ni waw gis nga waw andi wërëb ci xiir gi malay wax gis nga mees bi gis nga digeunte bi fer gi ni mu ci digeunte bi mhm. kon manam sabar gi ni booy li may wax man leen macha allah li nga di tëgg neex na. Mhm. jamono ndoy dox. Mhm. mais bu leen bàyyi sunuy sabar. dëgg la lii mooy sunuy sabar. lii lan moom mooy sunu sabar moom la nu moom mais mais mais Serigne. li sama réalisateur yi. waaw gis nga. gis nga ay jinne lan Serigne. waaw lii wax la. Mhm. peeg mees mees peeg ak xiir. lii la nu moom waaw boo ko xoolee fi mu ne tubaab bi danaan lii mooy sabar. sabar lii la moom mais boo ñu indilee beneen kii danaan jéembe la. mais xaw xawla lii tey nga foor ko ba mu rafet teg mais si lépp sol ndaanaan bu rafet di ko taxaw teg ko. Mhm. ni mu siluisé. xam naa ne tey sa waa association boobu ñuy association MECPES. waaw eh. doomi du Njaay Kumba Rose yi. di ci bokk na ci association mag xam naa tey bu ñu gisee image bi dañ nga wax di ci di ci gërëm sunu président. Mhm. Bakar Seck. Mhm. Bakar vice président. Bakar ah, sunu grand Badou Ndiaye. ñooñu ñoo jël association PEC MES. PEC MES bërki dem bi ñuy dem Louga. Mhm. lépp lu ëmbul saa waay. dëgg la. lan wëlbatiku tamit ma ci may may profité tamit nuyu tamit suñu association les jeunes griots de Thiès. Mhm. suñu président alaaj Dërgën. Mhm. Diouf ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax. waaw sama nuroo waale. waaw waaw waaw alaaj Dërgën di ma ko Ibaa ak son moo Modou Fall. ñoom Paata Mbaay ñi ñëpp ci lan bokk. macha allah sëriñ dimbali nañ sax alaaj jërgën daa war a ñëw. waaw xam day ndax parce que mooy suñu président. Mm. day ñëw waaw. ak Père Modou Fall moom rek ak Mbaye Guèye Niang ak Paata Mbaay ñooñu dama bëgg nga boole. ñooñu ñu fii de. waaw Mbaye Guèye Niang. waaw <laughs> ñooñu dañoo war a ñëw. ñii nga lim ñëpp pour ñu fii. waaw mais loolu senegal kon. loolu dañoo war a ñëw ndax parce que. ñi ngi ci liggéey boo xam ni moom nga doon bu boobaa. wax ji rek du doy bu boba est ce que mag ñi duñ jek jékki jóg jël cool mi. nan ko def bu tabaske par Allah dim Mustafaa. waaw jël cool mi walé invitation invitation direct. Mhm. limal. <laughs> waaw euh, Paate bay Paate bay ci plateau précis. Alaaj Dërgën. Alaaj dergen ak euh, mbey gay ñang Père mbey gay ñang Père Modou Fall. Père Modou Fall. ak Ibrahima Diouf Iba. <laughs> ak Pam bay ay Pam bay tam daa wa grand Pam bay waaw. ak Pam bay mais daw de préparer ma plateau boobu bu ñu tabaskee pare. ñu indiwaat culture aada ci làmb. voilà parce que lii. xale yi lii nar a naax saa yi mag ñi ngir yàlla génn leen seen génn yomb waaye génn leen ñëw toogaat ci plateau yi. Mm-hmm. wax ak Sénégal lu ñu dee. waaw mais koroog man biñ demee Louga. Mm-hmm. mais ñooñu ñooñu ñooñu ay ay ay géwal lañu. pire yàlla dimbali la leen. Mm-hmm. Bakar Seck. géwal la Père Badou Ndiaye moom ak Bakar seek foofu. hôtel wi ñuy dal moom moo ko tabax. Juga Europe ci ñew indi ay tubabam hmm. mais dañi pek mes moma may li sabar gunu for ñu ko wara foré sol ko yéré mu jot alaaj Ndour jaay ku mbaros man sabar a gore Biram jaay di doomu alaaj eh, du jaay ku mbaros waaw momit diko xex bëgg lool lool di nit ku baax tamit ndaysan affaire bi dal machallah boko xolé day xam sabar ki doon tëggal legi alaaj mam gor gi waaw mën naa jee cité ñaar ñoo xam ne mënuñ mun leen a génn. d'accord góor gi sañ waaw Wesañ Fañ. waaw moo daan tëggal moo daan tëggal mag ñi. ak ak ak ak ak. Doudou Ndiaye Coumba Rose Doudou Ndiaye Coumba Rose. duñ ci génn. waaw parce que mag ñooñu gis nga dem nañ sax ba état reconnaître leen. lu ci mel ni défilé. indépendance. Mm-hmm. sax danaa ne indi leen sabar yi. waaw ñu gis suñu tradition. moo tax xale yi bu ñu ba ba yaakaar ni lii ñu yor daal maanaam dañ koy fawer dañoo xamul te teral na ku ne. Mm-hmm. gis naa géwél yoo xam tey avion yi daanaka dugg ci toilette lañ ko yemaleel. dañuy bàgg dem mu ñu neex mais mais euh, Père dañoo toog Louga mu ni. Mm-hmm. peeg mees yóbbu na ma dugal na ma ci avion boo xam ni. Mm-hmm. suñu président mosu ci dugg. yóbbu na ma ci dëkk boo xam ne suñu président mosu faa dem. dëgg la sabar. sabar da ngay fonk ci sa. Mm-hmm. kon kooku xam nga ni kon sabar mi ngi koy teral. manam kon nan fonk sunu sabar yi. ate mi ngi lem neex na way du jiw. waaw waaw dana ciap sun baram macc ndax ku nan bitel bi daanu. <laughs> Mhm. ta euh, alaaj Moustapha mhm. ñu ni seetaan kenn doyalul. Mhm. waye li bu seen xol seddee. sunu yoo sa ko raw. ndax tay dañuy waxtane lu ñu xam lu ñu mom lo xam tay ko ci dakh rek Serigne mi keur men sa da fay nek ba 3h du matin. di waxtaan ak mom ci sabar rek koor gi dañuy tok di waxtaan ba aslatu khair min an wallahi wallahi wallahi di waxtaan ci culture aada ak ça mu nek mag mo xamanteni vraiment alaaj Moustapha mhm. yaangi fatale ko suñu temps ba par yu ya ñom lañ fi daan fek ak ñom Serigne Dia ñi ñoñu tété mhm. ñi ñoñu dalal ba kon tay buñ toggé ba sekk ak ñom plateau yi lu mu namon nak bëggoon ko lol suñu jàkkaarloo motax xamu naan yuñ jàkkaarloo mu sedd neex guddal sa fan amin waay nañ ci yow nañ ci yow di wax ne lu wuro wa ak fa danay càpp suñu baaraam màcc nag te xam ne yéen a ngi fi ñoo ngi fi dina yàgg dina neex incha allahu rabbi alaaji Moustapha Ndiaye ñu bàyyi la nga tàggatoo ñu jeexal émission bi ba beneen yoon mm-hmm. mën nañ ko fekk këram mm-hmm. ñu génn cóol mi ñoom nguri dar ko ah? mm-hmm. ñoom ma sàmb sama xarit sama seex dar ko ak xale yooyu nga xam ne car masha Allah ñoom ñëpp a bëgg seen bopp bu ko defee ñu toog ca biir ngéwal ga jabaram daagu lu mu gàtt gàtt loo gaaw gaaw loo yeex yeex bala ngaa génn kër ga mu dóor la kaasu lewal <laughs> jabaru géwal day am géwal la kër kër la c'est la géwal waaw c'est la di bàyyi sëriñ mu tàggatoo tàggatoo bi rek di santaat yàlla bu baax mm-hmm. di di kontaan ci yéen ah di gërëm tamit sama jeeg ja ca kër ga mm-hmm. sama aawa mm-hmm. saabu Konte. Mhm. ñaareel bi nogoy ma nga ca Mbour. Mhm. ak euh, sama waaw waaw waaw ak. séeri birima ah mhm. waaw waaw ak euh, Ngone jàbba Ndey Koddu ak Faatu ñooñ nekk ca kër ga tamit di ñu ceebal ceeb yi neex. te duñ ci booleek wax. macha allah kon war ma war naa leen a gërëm. di santaat yàlla nag. di kontaan ci émission bi ngeen ma invité lool ndax yéen neex ngeen a fekk si. ndax macha allah li ma daan wax El Hadj Moussa Ndiaye mii rek. lii da nga koo bëgg waaye boo ko gëmee di ci mas a gis sa njariñ yow ma la ko daan wax kon nan jàpp rek taa bàyyi mm-hmm. yal na yàlla defal jàmm mooy ñu gudd fan ak wér gi yaram yàlla yombalal ñu xarit nag. amiin waaw waaw. parce que nag xarit nag wax dëgg eh. yàlla nag. <laughs> di woo géer ji baax ñi rek sollicité Pape Doumbia. waaw Doumbia. waaw ah sa gewal yaa ngi nii. waaw am na lu buum waaye amagun xar. luñ ci yeew waaw luñ ci yeew. <laughs> maintenant yàgg nga maa wax nag ñëwal bureau ba. Mm-hmm. yàlla dogalagu ko nag. Mm-hmm. parce que man it bëgguma yaa ma gën a xam. waaw doo bët chaque jour. mun ma demal. chaque ma demal moom it fu ma taseeg moom ndax Pape Doumbia dafay nit ku moom mm-hmm. def geste bu rafet. Hmm. fekk may defar sama moto ci mécanicien bi fii mu romb ma séen ma xame ma rek dox ak tànkam bàyyi ñu ma àndoon dikk jox ma loxo. ndeysaan boo doon lu rëy ma ne ko yow ku baax nga. la yow yow ku oyof nga quoi. Hmm, hmm, di jafe na ci nit. Mm-hmm. macha allah ñu koy ñaanal yàlla teleem bi yàlla na doon ay télé télé ñu dégg télé yi mag yi ñu yegg fa ci kàttanu yàlla suñu borom man na kontaan nañ bu baax a baax na sant yàlla bu baax ajo jërëjëf sëriñ alaj Moustapha ajo jërëjëf sëriñ xanaa di ko di ko jaajëfal rek mm-hmm. di wax ni gàtt na mais neex na neex na waaw xam-xam génn na fi tamit mm-hmm. vraiment li muy gàtt-gàtt xam-xam génn na fi muy tekki rek ni euh, jànq du fi jug te Seck damay faral di wax ni wax ba doon star yomb na. mais toog fa moo jafe. Mm-hmm. la la fay bàyyi nag xam-xam a koy tingoom. kon li muy tekki rek mooy tey ñun fi ñu toll. fi xale yi toll. Mm-hmm. mooy ñu bañ a ñib lu mag ñi. Mm-hmm. te dem rot rot ci seen i tànk comme ni nga koy defee. ñu ñu ñu roote ci roote ci ñoom. dafay am solo ñu lay jaajëfal grand. Mm-hmm. di kontaan bu baax a baax xanaa sekk. Mm-hmm. di nuyuwaat rek mm, Pape Doumbia. <laughs> di ko nuyu bu baax yaa nga ko lu mat mille fois. Ah. mais Doumbia fayal El Hadj Moustapha ah, Ndiaye ma fay waay ah. <laughs> ah. <laughs> bu fekkee déggul olof ne ko ani soxoma. ani soxoma ani soxoma ani soxoma di nuyu di nuyu sama mag. Eh, boo xam ni sama doomu bàjjan la. Mm-hmm. ma teyir sekk. bari dem daf maa woo ne ma seetaan naa la yàgg sekk ndaanaan ngi Dakar mm-hmm. mais day ñëw chaque weekend mm-hmm. bàyyi ma woon xel ni sax daf ñuy bàyyi xel mm-hmm. mu woo ma ne maa ngi leen di seetaan mi ngi nice vraiment kon ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax moom itam mu nekk responsable politique bu mag fii ci nekk nekkal fi Déthié Fall PRP coordinateur am Thiès sama mag la di grand bu baax grand bu social ñu koy nuyu bu baax a baax yoo xam ne su ma nuyoo rek ku nuyu jar naa nuyu. non dëgg la. waaw man kay bi xam <laughs> mais mais mais El Hadj Moussa. jar <laughs> dogguma la ngeen baal ma. <laughs> xel day fattu. Mm-hmm. sama seex. Mm-hmm. ñu jàngandoo defandoo lépp dafa def lu baax muy daam seen. daam sekk daam seen sama waa jàngo daaw defoon na ko ren defaat na ko. Mm-hmm. kuy géewal ci biir Thiès. joxu la jagu xar waaye jox na la loo xam ne boo ca tekkee jëndum xar. ñu koy ñaanal yàlla nag. daa am seen a mën a segere dëgg dëgg dëgg dëgg. <laughs> yàlla na <laughs> ko gën a man ndax parce que bëggul ñu koy wax sax waaye ku la defal lu baax. wax ko di nga ko wax. daam seen ñu ngi koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér gi yaram li mu bëgg. moo ko xam yàlla suñu borom defal ko. ndax parce que def na geste bu rafet. defati na ko sax la loolu rafet na mu mel ni xar euh, comme ni nga ko waxee rek ñaan yàlla xar yi yomb. ñun ñëpp ñoom xar. bu ñu amee xar nag seet. amiin yàlla bu mu doon wërsëgu sàcc. barke alxuraan waaw waaw wërsëgu sàcc. amiin jaar naa laaj jaar naa ñaan ndax gars yi ñu ngi yeewu ba tey. <laughs> waaw yaa tànk tànk tëraloo ba fees ba noppi. Ah. bul bul bàyyi ñaan kooku ci gars yi yëpp am te buñ ko amee yàlla bu mu doon wërsëgu sàcc. amiin barke alxuraan noonu lañ leen di joxe dig daje rek yeneen émission jërë ngeen jëf jërëjëf mbokk mi ngi noonu ci noonu tamit man maf ñaandu ndax ñambaas yàqul sër mm-hmm. te yaakaar naa ne <laughs> li fii ngeen jaar da yoon bu kon ku ci jaarul ak jaar ci ñàll te ñàll wa moom ki yaa kebe xam nga xam naa jërul ma nekk fi di wax na gën a ci tabaski daaw maa ñoo àndoon di wër soble ak di na la ren fekk waaye damaa woo bu mu ñëw ni ma boole naa la ak sama yaay. ma dem yaayam yëkkati teraanga ju bari jox ma. bu ko am kóllëre te xam ne kon kooku ba mu demee yàggul. dëgg la koo xam mm-hmm. dafa góof sax sept mois nga bëgg maa yónnee xaru tabaski. ndeysaan ko baax kon kooku daa mel ni rek ba mu ne cëpp la ni tabaski ren gi it sekk moom faa ma yónnee waaw xam na xam naa nag. Mm-hmm. yàlla na suñu borom xéewalal ko. dara jaal ko may ko teraanga ju kawe kawe kawe kawe mm-hmm. dégg na lu nekk ndax man dégg naa lu nekk ndax moom. ñu ànte yàlla tax mu doon nit ku baax ki yaa yàlla jàppale. Mohamed jai, Ndiaye Mohamed Ndiaye mu alaaji Mor Jaxeer Ndiaye neex bay naqari bay na ko so deug la deug la ndax mëno ci biir dekk bi def lu baax te bëggo kenn du ko wax man sék ndaan nak sama loxo ci kaw dina ko wax deug la boko ko fekkee ray mm-hmm. nga xamni ne Mor Jaxeer Ndiaye moy bayam deug la te lu mën ti wax ban la barke sama barke bay rek bay bo fay say bor deug la lu la Mohamed Ndiaye wax ban la barke sama bay alaaji Mor billahi dama ne la dina ko def mm-hmm. gëm ay way juram am teraanga mën a def social terrain raay boo ko fekkee muy football néew di doole yi miskin yeeg baayo yi doon koy wër taalibe yi nag wax ma seen wax mu ànd ak jabaram ju baax ramasaar maa ngi koy nuyu waaye kenn du Rabia Rabia mooy deuxième dame Rabia Rabia kenn du moom Mondou Mbaye may ma tuuti ci Rabia. Mm-hmm. Saafi Dieng may ma tuuti ci Rabia <laughs> Mouhamed Ndiaye yàlla yàlla guddal sa fan bërki dem rek dañoo daje muy ko teranga ji bari jox ma te ndaw la dëkk man na faal li muy def rek ci foyer de jeunes dëgg la li muy def ci miskin yeeg baay yi mm-hmm. même bu fekkee du sa nit sax même bu fekkee sax am ngeen xaar ma yàlla sax am ko kenn ñaanal ko ndax bu amoon man na faal ñeent yu mel ni Mouhamed Ndiaye billaahi lu bari dina wàcc kon na ñu ngi jaaj di jaajëfal sama PDG Pape Doumbia tax na kenn yebbu ma ci xar Pape Doumbia tax na kenn yebbu ma ci xar taxul wóowuma kenn téléphone ñaanuma kenn saraxuma kenn Pape Doumbia li ko war sama digganteem def na ko ba ma sëkk mm-hmm. lii moom je défie quiconque wax naa ko xëy na nag géwal moom foo jaar nag moom di nga defi <laughs> fi géwal fu ma kon surtout Chérif Koumba ak Fama ak Moussa naa yaa ngi dafa fa El Hadj tëjal émission bi. amul lenn lu yàlla yàlla doon jàmm. jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm. ko xamat bu ko takkee laa bu ñor ndax da ko mën dana noonu ñoom ñaar Elton kal na ko yëg ko maa du la tuur Elton kal bi daa sori dana la tëgg boon door bu daanu door bu daanu door bu daanu door bu daanu daama ay waay Samba